waaw euh, tey dama ñëw pour euh, waxtaan ak tuuti euh, ak axlu làmb parce que man dama gis ni peut-être du question wu mbëri ci seen bopp sax mais à la limite dafa am réglement bi yoo xam ne daf ci war di suivre à chaque fois que mu am benn benn combat bu am benn benn issue boo xam ne favorable pour mbër alors ñu war ko mën a Euh, arrange de façon que mu nekk intérêt combat bi ak mu nekk loo xam ne ci règle lay tegu loo xam ne mbër bi da koy nangu ak staffam ak aussi lu ci am mu nekk sanction bu ñu war a mën a nangu. dama gis ni dañuy def quinze minutes quinze minutes 15 minutes léegi dañu waroon def benn affaire première quinze minutes yi mu nekk quinze minutes boo xam ne dafa am combat ak coup mooy maanaam combat boo xamante dafa am coup léegi yeneen quinze minutes yi ci topp ñu def ko combat boo xam ne ni euh, day nekk simple. maanaam amul ku muy deuxième quinze minutes bi alors troisième quinze minutes bi ñu jël les cinq minutes def ko ku les dix minutes yu des ñu def ko simple mooy maanaam day doon dix minutes yu mujj yoo xamante ni du am ku bu ko defee danañ mën a xam mbëri kan moo ci mën bëri ak kan moo mënul bëri am na ñoo xam ne bu coup amee comme Lac de Guiers li mu bëri tey daf ko teg foo xamante ni daf nii waaw man bugguma lu may lu may lu may déstabiliser xam nga bugguma lii bugguma lii alors da ngay gis ni quelque part du engagement bu mu def ci combat bi wala koo xam ne dafay wane ne moom vraiment fit bi li mu war a def yëpp def na ko tey jox nañ sanction Eumeu Sène mais da doon reculer effectivement période bi mu toll noonu bu taxawoon coup moo koy dal wala ñu jàpp ko daan ko te loolu dafa amoon benn benn posture de recul bu fekkoon ne def na trois pas successives bo alors mën nañ ko ci sanctionné mais garaawul euh, lii dafa laaj ñu rectifier waat CNG lii la war a taxawal si kanam mbëri première quinze minutes bi mu doon coup bëre ak dóor bu fekkente ne bi ci topp ñëw na quinze minutes bi topp du am bëre ak dóor bëre simple lay doon bi ci toppaat ñëw mu nekk cinq minutes bëre dóor 10 des bëre simple loolu moo koy moo koy atte parce que loolu bu ñu ko deful euh, toujours mbër yu mel nii dañuy xëy di jël ci intérêt way su ma daanoo combat yi ñëw du ma am alors day commercialisé wu ba ba côté boo xam ne yeneen mbër yi war a ñëw duñ ñëw. alors day nekk benn tournure buy dugg ci ay euh, cycle de mbër rek kii bu bërëkkee bërëkkee mu nekk benn cercle bu ñuy tourner alors arrangé wul nit ñi te alors am na ay combats yu ñu war a réaliser mais règlement yi moo war a am côté bu mu ñëw taxaw mu sévère gars yi def li ñu war a def c'est ça mon euh, intervention ci combat bi parce que combat bi vraiment ah c'est zéro quoi c'est zéro très c'est zéro sincèrement